amna solo maa ngi wax lek ci sa présentation tay jing jital jiital DER euh, lu xawa bizarre quand même parce que DER euh, tant décrié euh, ci jamonoy Macky Sall ñu maintenir ko nekul quand même ben contradiction madame. bokkoon na ci ñu ko doon décrier te yaakaar naa ne logique dafa bëgg soy décrier dara te nga xamné am nga ci solution nga ñëw apporter solution bobu ñima ko doon waxal sax ñu ngi may rétane biñ ma wowe di ma féliciter ñu ngi ma naan li nga ñu waxone yépp delloowaat nañ la ko la.

en France pour qu'il y ONG une ONG ñu bëgg accompagner ci ay réformes accompagner ci approprié wu nanu crédit bi nan lañ ko mëna a ba mu jël en charge les besoins vitaux des groupes vulnérables mais euh, nanu crédit nous ñu ngi koy bëgg a té te li bi ñu demee ba ci biir dañ ni gestion politique euh, moo bëgg yaq parce que ba ñuy joxe dañ leen ni won kenn duko laaj surtout à l'approche des élections dañ leen di woon président bi fi nekkoon moo leen ko may su ko defee nag ñenn ñi yaakaar ne du ñu fay mais comme ñoom itam wax dëgg yàlla la ma leen wax ba ñu ñëwee moo ci nekk yow bu dee Masamba da nga nekk ak Mademba ñu jël yow Masamba defuloo ci réew mi lenn lu war a tax lu ma Mademba deful ñu jël la jox la yow Masamba bàyyi demba te loolu ñu seetlu ko ci jigéen ñi seetlu ko ci groupement yi seetlu ko ci yéen journalistes yi seetlu ko ci yéen patron de presse yi nga gis koo jàngul xamul xamul sax lan mooy journalisme dal na ci rek ñu daal di jël alal yu bari jox ko ne ko ubbil li ngay ubbi benn Pape Makhtar nekk fee di di xoslu am crédibilité bu day ni benn ay dëmb dina ko wóolu keneen dina ko wóolu mën a wax ak moom lu jariñ nit ñi boobu boobu injustice dañ ko ressentir ba fii mu nekk parce que mooy xaalis bi nekk ci ci ci ci àll bi te man ba ma jëlee service mu nekk sama premier message c'est-à-dire que fu dërëm nekk te tey laa koy réitéré waat ci sa micro fu dërëm nekk dinaa ko jëli te jox jox naa jox wut naa ay moyen pour loolu direction de recouvrement bi nga xam ne dañ koo dindi woon delloosi nañ ko parce que tout simplement kooku daf doon laaj daf doon fayee ko ay nit ñoo xam ni kenn du leen laal euh, division juridique bi direction juridique bi dinaa ko renforcer te dinañ wut tam ñaari ténor du barreau yoo xam ne dañuy soutenir action yoy nga xamné mom moom la ñuy def donc euh dinañ dina la ko commencer wax wax la né la actuellement suñu premier challenge moy le recouvrement parce que il y va de la survie de la terre. té lolu la doon décrier en son temps waxon nako té te na naa bi situation la fay fek mais nak comme li ñuy wax ñeme nako euh, yaa ngi wax légui li ñu doon critiquer euh, lu bari ci DER moy financer ay euh, sympathisants wala ay militants politiques tey jii nga yore boobule kuréel est-ce que li ñu doon wax ak tey jii loolu nga gis ba nga duggé ci biir DER. mom la mom la gis moy lima la wax ne la xaalis bi jafé recouvrer manam bi jafé fayé ko seeni borom dañ lay wax carrément ñun dañ ñu waxon dañ ñu ko may motax euh dajal na leen.

wan leen ni leen bénéficiaires yi nga xam ne nangu woonu fay na leen présenté ñii ni leen lu ñu mënti def ñoom dañuy fay bon euh, loolu dañ koy topp ci fu nekk te euh, wax nañ leen ni leen loolu ñu ci bëri ci jigéen ñi la jeunes yi aussi wax nañ leen ni nga xam ne noonu la ñu war a fay mais dama jàpp tam ni euh, li ma doon critiquer tam bokk na ci accompagnement bi man jàpp naa ne bala ngay financer nit war na am ñaar yu jiitu budé dafa am courriel même budé GIE nga formaliser GIE bi wutal ko kayitu judd immatriculer ko taxaw ko té lolu APIX ñu ngi taxaw war ko def suñu yenen partenaire yi ADP mak ñoo ñepp bëgg nañu taxaw ak 3FPT bëgg ko def parce que dé da leen di jox xaliss pour ñu formel ko bu ñu formaliser ba paré ba xamé ki ki nga xamné mom moy wut lan la bëgg parce que du GIE yépp a yem lu ñu lu ñu bëgg du GIE yépp ñom ñoy am vocation. mais ku ci nekk am nga sa vocation am nga fi nga jëm am nga zone euh, boo xam ne fa ngay évoluer euh, am na possibilité yoo xam pour brasser li nga war a brasser loolu yëpp war nañ ko mën a identifier bu ñuy formaliser suñ paree nag former la ca la nga bëgg buñ la former ba xam ndax buñ la former lii dina jur dara wala du jur dara dinañ xam lan lañ la war a lebal parce que bu boobaa dinañ xam ndax liñ lay lebal dina dina mën a jur loo mën a fayee wala liñ lay lebal. ci perte lay jëm mooy li ñuy wax les projets porteurs su boobaa nag loolu mooy mën a tax nga xam ne nit ki loo ko jox dina ko mën a liggéey te bu ko liggéey itam dina mën a rembourser pour moroomam mën cee jariñu parce que en réalité il s'agit de ça il s'agit du fait que euh, nga liggéey joxe pour ñu mën a jox sa morom su ko defee chaîne boobu moo nuy mën a dimbale ba mu suqali jigéen ñi mais mën a dimbale tam xale yi xalé yi souvent euh, buñuy wax jafé euh, jafé ñuy am dañ la ci tégal accès au crédit euh, tay di de bu ko ñongalé est-ce que dina mëna garantir quand même xalé bu né bu am prétention wala bu am sax ambition DER accompagner ko comme ni nga waxé légui ba jox ko crédit bo xamante dina mëna dundal yoyé la ambition. DER DER est assez outillé pour ça gis nga pas Makhtar bo duggé biir DER. dex ma ngi nuyu docteur Lo gis nga ña fa nekk ils sont tellement outillés nga dem le directeur de le la direction des opérations dañu am cartographie lépp am nañu assez de données yo xamné amuñu dara lu ñuy à NSD de données yooyu mën na dimbali ku nek ba nga xamné mën nañu euh, quadriller effectivement besoin wu génie, mais le problème moo di am na ay contraintes génie yi comme ni ma wax léegi est-ce que nous avons formé un leen en GIE coopérative avec le nouveau gouvernement est-ce que coopérative est organisée nañ ci jeunes de toute façon euh, nous dem vers euh, les les ministères wax ko déjà ministre de la pêche suivre ngeen suñu manifestation ak manifestation bi nous. Nous rek mu remise boo 16 milliards et quelques la dans le cadre du PAVI Le PAVI la première phase de 74 milliards nous avons reform deuxième phase c'est presque le double donc nous xale yi nañ ci war na parce que 16 milliards nous avons 23 ko def euh, bénéficiaires euh, jeunes Euh, mais 1 milliard 300 millions yoo 127 000 groupements. groupement donc nous avons qui euh, nous de le fonds de caisse, nous avons euh, fonds qui les accompagnent. Euh, donc, identifier les besoins. Nous avons le crédit devenait à la portée de tout le monde parce que les malades qui ont été le nano crédit. Nous avons 50 000 francs à commencer. Sauf que nous avons 115 000. Sauf que nous avons 100 000. Sauf que nous avons 200 000. Ainsi de suite, nous avons 500 000. Vous voyez que ces 500 000, nous avons 1 million. Parce que ça veut dire que am le chiffre d'affaires pour le permettre de maintenant 1 million. Si vous avez 2 millions, si vous avez 2 millions, il faut arrêter de commencer à élaborer le crédit pour permettre de aller à la banque. Si vous avez la banque aussi, vous avez le taux de la banque. 5% parce que nous avons fait son calice, de quoi Donc, la banque est concentrée sur les mêmes. Si vous avez un projet, par Maktar, vous avez 2 millions. Euh, bëgg studio bu ko permettre mu def 10 millions bu boba DER ba bobu sax DER mën nako mais su da fay am ay euh, besoin bo xamné 100 millions lay laaj wala mu jëm 1 milliard bu boobaa da ngeen def du cofinancement cofinancement modi DER dina am garantie bu mu lay duggal mais da ngay jël nak légui ci xaalisu banque bi légui nak banque bi ngay ngay àbb mais du ñu yegg ci ay 14% pour banque bi de DER dafa contracter ak banque yi pour que 8 pour banque bobu lay label 8 pour lay jël ah, a defu mu jël 5 pour comme DER day jël 8 pour bu ko defee nga mëna réaliser sa affaire dina am période moratoire euh bo xamné mom ngay jël temps pour liggéey ñu door lay wax euh nuñ koy échelonné ba effectif nga am nga mën ci génn parce que dinañ dem séti projet bi les sachants dinañ xam projet bi lan la mëna génné comme ni ma la ko waxee ndax dina fekk ñu immatriculer fekk ñu formaliser la fekk ñu former la ba ñu effectivement projet bi mën na fay li wala euh, projet bi dal même suñ ko financer tam mënul fay lool mm-hmm. wax nga ko légui lu am solo la euh, tay ji bu nekké dañuy euh, jappalé nit ñi pour ñu mëna réaliser seen i rêve wala sax seen i ambition mais souvent aussi li ngeen doon critiquer est-ce que du ñëwaat moy politisation gëw ma ko man ma ngi am ben groupe boo xam sama école du parti la parce que xalé lool lañ ma waxoon ne ma mënuloo dem di jàngale ji leadership ak di li nga expérience ci parti té do té do ñu jàngal politique waye biñu commencé rek nan dañu wara duggal information des ri fi la leen ni bu boobaa damay génn parce que mënuma décrire dara ba paré diko def té sama autorité yi nga xam tam ñoma ma fa teg ñoom nanguwuñu loolu parce que yamul sax té am na lu fi xewon dispositif bi moko ko mais man Euh, non seulement defuma ko bëgguma ko def mais ñom ci seen bop def nañ tout pour dindi lool lool fi nekkoon amul parce que dugguñu ci limay liggé un jabar dugguñu ci comme li fa li fi amone les malades di xam yëpp pour pour jox la pour la petite histoire félicitations sax defuñu félicité wuñ ma sax pour bañ rek ñu ne la fi nekkoon nag bëgg donc jotewuñoo man dara maa ngi liggéey samay responsabilité la maa ngi liggéey li ma war a liggéey donc mënul nekk maintenant nag maa ngi identifier contrainte yi nga xam ne mooy ci tere woon xale yi jot mooy comme li nga wax léegi muy l'accès au crédit parce que wax naa ko euh, <laughs> maa ngi nuyu gouverneur banque centrale dama ko doon tooñ dama ko ne yéen banque classique yi jotewu maa ngi yéen dara man ñi ma am mënuñu jot ci banque yi comme mënuñu jot jot ci rek il faut que ñu xam man lan mooy sama condition c'est-à-dire que man banque intermédiaire la à défaut nga am accéder ci banque man maay alternative bi kon man maay alternative bi nag rôle d'intermédiation boobu foog ma dox beneen contrainte bi ci des mooy li ma daan wax léegi bu immigration yi amee du caagoon dama nekkoon opposition rek di sànni mais dama doon wax est-ce que xale yi déglu nañ leen est-ce que xale yi xam nañ kan lañ war a waxal loolu moo tam te deuxième phase pavi bi may wax am une bonne dimension de territorialisation des actions territorialisation bon, moins tax faut tourner gis DER quartier tu village mais surtout nous commencer par la départementalisation de la DER au moins parce que am au moins vingt bureaux yoo xam ne daf choses qui rek ñu teg ko fa mais tey am un projet qui par zone la ñu la euh, des actions moo nekk quatre zones à travers le Sénégal mais même li ma gëm tam au moins au moins chaque département war na am bureau d'air te ñu ngi am ay partenaires yoo xam ne yu mel ni Mastercard ñoom dañoo voté budget spécial pour le branding pour que bu ñu ñëwee gis bureau d'air bi ñu def ci image yoo xam ne dinañ xam bureau d'air te loolu avantage bi mu am mooy xale dootuñu réer dinañ ko xam ba pare ñu équiper leen def ci ay fablak boo Eh, da ngay da ngay ñëw boo ñëwee deer ci ci ci mezzanine bi moo nekk ci biir boobu nga xam nañ fa jàngal xale yi nañuy monter ay vidéo dinañ fa jàngal xale yi euh, vraiment savoir faire boo xam ne dinañ am maîtrise ba pare fa la ñuy jàngi informatique xam nga mënul ñàkk jox nañ ñu assez d'ordinateur pour que ñu mën équiper département yooyu te jël nañ leen tam en charge nga xam jël nañ sax équipe yu leen di former à tous les niveaux donc comme li ma koy rappeler rek der jigen ñi mais aussi ces jeunes là de moins de quarante ans. Euh, ces jeunes de moins de quarante ans euh, wax nga ko légui ñaari kàddu alternative ak euh, immigration tay di est-ce que immigration bob nonu der mën donne une alternative. mom lañ bëgg mom lañ bëgg té man dama ci joxe sama kàddu wax naa ko kérok ñima don dajel dajeel len bo len leen Euh, mënuma dellu gannaaw ci recouvrement bi mooy gor bu waxagul moom moom boppam mais dama ni man dinaa recouvrer fu dërëmu deer nekk dinaa ko jëli loolu nag su amee mënuma man ko amatuma droit bàyyi leen ci seen sago leneen bi ci des moo di dama dama bi may jël service dama gërëm président ba Bassirou Diomaye ak son premier ministre Ousmane ko mais gërëmal leen aussi waa Sénégal waa Sénégal gërëm leen lim leen gërëmee moo di benn yaay lañu jël yobbu ko deer et pas n'importe quel yaay moy yaay bo xam ni na nak lu nekk ci rew bi parce que nak doylu ak doyel mo fi nekk c'est-à-dire que sama vécu ak sama âge mayetuma may top dara lutax tax li chance su yi ma jox leen ko donc fofu la toll moy yaay bo xam dama wara def mettre en place des mécanismes d'accompagnement d'assistance yo xam dina dimbalé xalé yi man moom problème actuellement

da ngeen euh, d'accord ngeen ci moom ngeen yaakaaroon na euh, moom ngeen yaakaar euh, yàgg bëgg mais ni mu toll doyu leen man ko dinañ ko yokk de mais du pour dem fenn du pour dugg ci Atlantique bi mu ni waaw ma ne ko li ngeen bëgg loolu dinaa def tout pour def ko mais nag ngeen déglu ma déglu bi mooy bu leen dem loolu c'est message fort Pape boo xam ne bëgg naa ko jàllale ci xale yi xale yi xam ne Sénégal gi lépp a ngi fi volonté politique xëy na moo njàkkoon

parce que loolu rek la ba paré bolé ci yenen yo xamné ñom lañ koy andal ndax moy moy credo wu DER innovation accès saisir les opportunités même ci bénéfice mais aussi le suivi évaluation pour ñom ñu sét fu ñu tollu ñu ci ak ñom pour di rectifier ak di jubal di jubal di jubbanti ak di di juk mhm. benen problème euh, bo xamanteni euh, wala sax yenen problème yo xamanteni jeunesse bi le euh, concerné mi ambulant yi ak tiak tiak yi est-ce que ñom aussi yéen ngi leen di sóoraale ci li nga xamanteni ni bëgg ngeen ko tek ci DER waaw parce que ñu ngi am des projets yo xamné ne dafa dépendul ci ñun rek parce que dama ni ku melni tiak tiak yi war nañ leen mëna organiser parce que ñun dañ am ben euh ki bo xamné ma ngi la koy wax ben partenaire

mais lolu dépendrul ci ñun mu ngi dépendre ci ministre bi nga xam moko yoré mu ngi dépendre ci président mais ñun xalaat lañu am té xalaat yoyu dinañ ko jox kilifa yi donc ñun bëgguñu ku leen def rek ñu nekk ay hors la loi dañu bëgg encadrer leen bon ambulant yi euh, wax dëgg yalla ñom mënuñu fay premier ministre parce que premier ministre euh, bi ma waxé ambulant yi man xam ngeen ni Bawol la dëkk té wax dëgg yàlla tudd nañ ma Lion di Bawol mais man dama dama am bawal ci sama xol bawal boobu nag ñu ci bëri ci ambulant yi même ku dëkkul bawal sax dañ naan bawal bawal yi ñoo nekk ci mbedd mi di ñu attaqué yenn saa yi di leen dëkkal fu ñu dëkkul xaw leen a jàpp sax un peu comme des pestiférés or jom rek lañu ñu faysal ba ñu jóge ca dëkk ba jom la ñu àndal ba ñu ñëwee jom lañu ñu àndal bi ñu ñëwee ci réew mi wane nañ jom ndax yàq ñu li ñuy liggéey ñu ngi koy investir te xam nañ ni dara lañ ci dëkk bi loolu le premier ministre xam ba ni ma d'accord naa ne dañu bëgg di formaliser door a door a door a door a enrôler d'accord naa ne dañu bëgg a former door a enrôler mais ñi nga xam ne am nañ seen place ba pare am seen fonds de commerce commencé seen liggéey ñooñu mën nga gagner du temps ak ñoom te d'accord naa ci ak moom parce que ñooñu dañu am seen alal rek ñu ñëw dal ci seen kaw dégg pir leen yàq ko mais suñu leen joxee seen xaalis ba ñu amoon tek len fañu wara nek parce que d'accordul ak ñom aussi ci ñu ñew di tok ci mbedd mais loolu tam d'accord ci ak mom té directive yi ma jox wane na ni d'accord ak mom bi ma premier ministre euh matul une heure de temps ni ma naa parce que li motax wax dañuy dem Colobane man avant may dem amna partenaire bu ma paree jox 1 milliard ba paré wutna ay site de reclassement de reclassement fo xamné ay site de recasement yoo xam fa lañuy def euh ambulance problème bi nak moo dafa am leneen lu ci laxasu parce que ñi nek ñi nek nekk Colobane bëgguñoo jógee Colobane ñi ñi nek Sandaga tam nañ Sandaga mais lu ci nek amna ay perspectives yo xamné dinañ ko proposer autorités yi pour ñu mën ko def parce que xam nga ni Sandaga amna ñu tuddo service ño xamné euh war nañ ko fa mëna jëlé pour ñu mëna def seen rôle ñu yóbbu leen te bu boobaa ñu jox Sandaga delloo ko vocation mu mën a étendre ay tentacule am euh, bi ma bi ñuy wax waxu Colobane tam xalaatoon nañ jël surface bi nekk euh, CICES mais ñoom ñoom bëgguñu sori Colobane donc ci wetu Colobane am nañ fa ay opportunité yoo xam ne ñu ngi koy jéem a seet euh, ku mel ni Cheikh Baara mu ngi ma ciy jàppale parce que xam nga ne ku outillé la am na ay xame lool pour ñu wut ñoo xam ne dinañ ñu may ay place yoo xam ne dinañ fa dinañ leen fa mën a installer waaw bi ma waxee le maire aussi nee na ma dafa bëgg a def ay cantines tout autour de la gare routière ah cantines yooyu suñ ko defee suñ ko tabaxee sax euh, def ko en hauteur yaakaar naa ne euh, di yaakaar naa ne daal dinañ